président du conseil départemental xam naa ne ñoom aja yi nga xam ne ñoo nekk assemblée ñu may xaar mais yal na def balaa may ñëw assemblée nationale mu leen jox benn plan dañ ko ñaanaloo ñu yëpp te yaakaar naa suñu ko mag ñu sell ñi ak ñu baax ñi ñaanalee incha allah Kër Massar dina maanaam hôpital Kër Massar centre de santé jaxaay ñu ko mën a yéegal poste de santé ñu def leen comme programme bi nga xam ne moo am Sénégal yëpp renforcer ce qu'on les soins mooy fi gën a suufee nga xam ne ku sa bopp di metti foofu ngay commencé te moo wax ne aussi fajkat yi du rek ku sa bopp di metti yu defal la scanner parce que jéem Amath Diouf nee na ma scanner yëpp a ngi panne parce que tube yi ñooy yàqu te jàng ne ne tube bu yàqu mooy dafa am une surutilisation donc dañu jàngal su ko appelle les protocoles sanitaires lu ma ko jàngal kenn médecin laa ko ñëpp ku ñëw par pyramide la sama bopp day metti est-ce que bopp bi buy metti day ànd ak miir est-ce que miir buy metti day ànd ak bëcc yu metti et cetera ñu def lu ñuy wax benn arbre euh, algorithme ba egsi bi nga xam ne fa la ñu war a egsi loolu yaakaar naa monsieur le gouverneur monsieur le préfet ak toute l'administration territoriale nañ ci jàppale di jeexal rek di wax ne sama xarit Fatma Gueye Dantec gaa tëj na ñun ñëpp on est nostalgique de bëgg nañ lool tabax yi daal te gaaw ànd ak technologie bi nga xamante ne son excellence loolu la ko waxee mais ma jàpp ne tey rek bët bi dem woo nañu ci malade Dantec yi waxuma sax ne hôpital Dalal Jàmm moo ko opéré waxuma ne hôpital Xaadimu Rasul moo ko opéré mais Matlaboul Fawzeyni moo ko opéré loolu nag foo ko gis ça veut dire qu'il y a des progrès te loolu lañ bëgg mu jël kanam Dantec dina ubbiwaat. redéploiement bi pare na mais nag toxu dafa metti mais booy toxu tamit yal na nga am muñ ak tey bi nga xamante ne dañuy dellusiwaat su si yàlla àndee ubbaat si yu daan rek mais itam bu ñu ko ubbee da xam ne lan moo tax moo tey ñu taxaw fii mooy ku doon fajoo Diourbel na toog Diourbel ku doon fajoo Kaolack na toog Kaolack ku doon fajoo seer bi na toog seer bi régulation bi waa kër docteur ñoo koy def parce que gis ne ña daan teg meloon ñoo fi tëdd weer ci biti tëdd ci suuf loolu foog naa ne dafa yokk jàngoro a nag suñu défi également ay soins de qualité de proximité mais également prévention et promotion de la santé